silence total la soxla asalaamaaleykum euh, chers internautes yu Sénégal TV maa ngi am mbégteeg bànneex bu baax a baax seen émission bi nga xamante ne moo di nekk nu jigéen nekk nu jigéen nag tey dafa déplacé wu ñëw fii ci pharmacie Golf seet ki nga xamante ne moo di sama séex sama mag ñu koy wax Saliou ma dalal fi nag ki nga xamante ne moo di suñu tànt mu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moo jëm ci wàllum aada sama tante ji maa lay nuyu. ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm euh, ni ko naa di waxee xay xayat xattamu laa wala du noonu. <laughs> Zeyn xatt. Zeyn xatt. macha waaw ma bàyyi nga nuyu chers internautes Sénégal TV comme ni nga ko bëggee rek. bu la neexee nga def ko ci naar. waaw ñoo koy wax ci wolof sax ñoo ngi leen di nuyu. Mhm. seen TV ngi leen di nuyu. jërëjëf yaay booy ñu lay fay bu baax a baax sama gauche maa ngi ci ànd ki nga xamante ne moom lañuy wax wax Minette Melo muy mami mami nuyu naa la. fay naa la maman. def lu dul nuyu leen waaw. waa Sénégal suivi ah, maa ngi leen nuyu mhm. baax a baax di bon di am mbégte ak kontante euh, si ñëw bi ngeen ñëw fii mhm. dëgg yàlla kontaan nañu fi jërëjëf euh, mami ñun ñoo la gën a kontaan nuyoo bi rafet na torop yaay booy ñu ñëw fii tey seetsi la ñu war a waxtaanee li nga xamante ne moo di aada ak cosaan mhm. cosaanu naar nekk cosaan bi nga xamante ne dafa dafa nekk lu riche Euh, ba ma ñëwee tey nga solal ma li nga xamante ne moo di mërfa ak lii nii man ngi xaw ma sax nu mu tudd lii nii naka naka la naka lay def ci yéen waaw ñun li mooy suñu aada bu ñu amee céet suñu doom dañ koy defal lii mooy suñu aada lii mooy seen aada mërfa bii nii bëggoon naa xam lan la ci li ñuy wax xeyaat xeyaat waaw ci naan lan moo waral xeyaat waaw mooy mën fa takk moom la naar gën a bëgg ci mbël fa waaw dëgg la ñu amee seet bi ñu fonk li lépp dañ koy defal suñuy doom bu ñu leen di seetal macha allah mhm. dañoo fonk suñu aada dëgg naar dafa fonk aadaam doom ju ñu am buñ koy seetal te dañoo fonk ceet te dañoo fonk sunu aada dañ lay defal suñu yëfu aada maanaam daal su ma déggee kon ni nga ko waxee bu ngeen di maye seen doom. malfa mm-hmm. bii nii. waaw moom ngeen koy defar baax. Euh, ma gis tamit li ma tegal sama bopp bi mu nekk. lu <laughs> waa gis nga lool la sama gars yi dafa rafet. <laughs> lii nii lan lay def ci ah, li ma def ci lu bare na ndax mooy sama aada. mu def ci lu bare na. Mm-hmm. mun naa cër rek lañ fonk. waaw yar suñuy doom ba seetal. loolu def sedd suñu xol mu def ko suñu aada mais yéen ceetal gi ngeen wax ni moom ngeen di def ci naar mhm. est ce que yéen a ngi ceetal ci naar ba léegi wala waaw ba léegi na nga ceetal ci naar comme comme yan genre parce que du ci du ci comme ñi nga xamante ne dañuy sëy ak cosaan bi ñu lay booy dugg si biir am doom mhm. yéen seen cosaan bi nga xamante ne nii bu ngeen bi ci biir néeg naka lay noonu bu ñu seetalee rek première ceet gi rek bu ñuy dugal néeg bi kii aada yu bari yooyu noonu duñ ko def mm. waaw duñ ko def aada yu bari yooyu yaay booy kon sama gauche ma ci waxtaan ak yi nga xamante ne moo di Minette ñu gis nii léegi mm. jànk yi mm. fonkatuñu seen aada bu ñu amee jëkkër comme sama mbokk mi rek bu ñu amee jëkkër rek dañuy préféré ñu dem feneen wala ñu ànd ak seen jëkkër duñ fa xaar affaire aada ak cosaan. aada ak cosaan lan lay def. ci loolu ah, li muy def ci nit dafa bari kenn ku nekk nag danga war a xaar sa aada. Mhm. tey sa bopp fonk sa bopp bañ defal la yëfi mhm. waaw loolu dafay nekk lu rëy ci noonu. nga yar sa doom ba màgg nga ceetal ko mu seral sa xol. loolu dafa nekk lu rëy mhm. fonk loolu. dëgg la mami ñu gis ni yéen jànk ji ñun sax laay wax nouvelle génération bi. ak euh, cher internet Sénégal TV am une nouvelle génération yo xamantene ñom xaar seeni aada te tamit xaw lu mu non lutax que ñuko waaw maman dama lay rejoindre rek ci li nga wax. parce que mhm. loolu dama gis ni yàqamti la. Mhm. yàqamti rek la parce que booy xool euh, li nga wax dafa nekk phénomène boo xamante suñu génération yi nii ñu si bëri respecté tuñ seen aada. Mhm. parce que booy xool sax. dañ leen di maye leen ñu xaar seen yaay ñoo préparé leen ñu ànd ak seen jëkkër bu ñu naan c'est au fait seen parents bu ñuy dem mhm. duñ ko yëg te nekk na loo xamante ni euh, nekkul lu rafet nekkul lu gën aussi parce que lii rek dafa rafet gis nga suñu tante ji li ñu solal aada bu mhm. nice la ñu solal ñu mbëkk bu nice xam nga mhm. di wax nii rek dara du cosaan ba tax na di wax man sama morom yi ñu jeunes yi ñu bàyyiwaat xel suñu bopp gën a toppaat suñu aada parce que dara du aada xam nga culture dafa am solo si doomu aadama donc ku nekk dafa war a euh, di gëstu culture am di mhm. topp ay cosaanam parce que dara daal du cosaan mama daal dara du cosaan ni ñu koy waxee nii est-ce que yow bëgg ngaa topp sa cosaan parce que du ñëpp ñoo bëgg topp seen cosaan ah, bu baax bu baax bu baax a baax a baax parce que bis olof dafa ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem yëfu borom donc leneen li ñuy jël du suñu yëf quoi donc nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax di jël li nga xamante ni moom la ñu moom mhm. comprendre nga liñ jël li nga xamante ni di topp suñuy parents yi parce que cosaan dafa neex culture ngeen nekk ak dafa neex daal ba tax na daal xam nga ñu wàññi lu si bëri xam nga mhm. gën a daan toppaat suñu cosaan parce que là c'est important c'est important vraiment ah man de en personne mon vraiment sama cosaan dama koy gëstu vraiment ah, parce que amuñu lu tout ça en fait. en général xalé jigen ñu bëri loolu la wax sama cosaan dama koy gis. Mhm. alors que lolu duñ ko def batay damay dellu ci wat sama yaay boy batay may fàttali chez internet Senegal TV ah, yéen a sen bir émission nek ñu jigen mhm. yaay boy ñu gis ni yeen li ngeen di défaral jigen ni góor ñi en général buñ leen buñ leen di may soxna aussi noonu la leen defal loolu lan moo waral loolu bëgg suñu aada rek mm-hmm. faw góor ñi tam dañuy sol ay gram mm-hmm. gis nga ko dañuy defal ba mu baax sol gram bu sol caayaam sol simisam mm-hmm. ñu xam ne yow buñ la gisee yow ñu xam ne yow naar nga yére naar dafa rafet aada naar dafa rafet waaw dafa rafet macha allah ndax li ma def nii rek man gis naa ci sama bopp moo tax nag nun nu bëgg ko te fonk ko suñu doom kuñ ciy seetal kuñ ciy maye loolu lañ lay defal dëgg la ban jafe-jafe ngeen di am comme par exemple bu xew amoon wala dara nga bëgg kon comme góor ñi léegi ñi ciy nangu pour ñu sol yëre naar yooyu wala seen genre culture affaire yooyu noonu du du du yomb daal ñu nangu ko naka ngeen koy dundee. ñun moom suñuy doom dañ koy nangu ndax dañoo fonk seen cosaan ah. waaw dañoo fonk suñu cosaan góor ñi dañuy sol ay grand bu bu naa dañuy sol ay mën mais bëggoon naa ñëw tuuti xam nga expliquer chez internet Sénégal TV ji lay seetaan yëpp di la déglu tamit nga expliquer ñu euh, aada ak cosaanu naar daal naka la demee maanaam seet bi buy wàcc ba ci borom këram nim koy jëlee ba ci yéen ni ngeen koy sangeeg yooyu doom ñu jox jëkkëram rek. Mhm. koy defee. dégg naa ci jox bi yéen yéenay sang yéen bàjjen yi. waaw bu ngeen sangee ba pare après nan ngeen di def suba teel ay fajar yooyu tabale yi moo koy wax nit ñi ñoo leer nañu sa doom moom macha allah. Mhm. sa xol sedd na ci sa doom. Mhm. tabale yi moo koy wax nit ñi. ñëpp xam ne sa doom macha allah. Euh, sedd na sa xol daal. waaw mhm. ah, tabal yi moo la koy wax. mais loolu après lan ngeen ciy am. Ah, dañ cee am neex xol nag. Mhm. xam nga nga yor sa doom nga yor ko ba mu màgg nga seetlu ko seetlu naar. Mhm. nga jox ko jëkkëram mu mel ni mu war a mel. yow da nga ciy kontaan. Ah, loo am rek ci nga koy def. too bàyyee dara sa bopp. say mbokk yépp taxaw la nga def xew bu neex. waaw ma gis ni léegi jigéen ñi. xaaratuñ fa lool. ah ñu bari xaaratuñ ko de waaye. comme suñu genre yi may wax ak minetu sa génération gi yow sax laay wax. parce que da ngay gis ñu bari comme ni ma la ko waxee sànq fonkuñu ko. mais lan moo waral loolu ba tax toogatu leen di xaar aada bi ñu leen koy defal parce que yaay bi dafa wax léegi lu am solo maanaam bu la sa borom kër jëlee ba pare li lay yee mooy tëgg yeeg yooyu noonu. te yéen xaaratu leen ko bañ na ko ba sax da ngeen naan nañu dem feneen defee ko fa hmm. affaire yooyu noonu te affaire bi daal dafa nekk loo xamante ne dafa nekk lu neex. Ah. lan moo waral loolu yéen léegi génération bi ñu nekk nii la wala. Euh, maman damay euh, am mbégte bu baax ah si sa question. Hmm. parce que booy xool lu tax xaaratuñ ko léegi parce que dara tamit gënul neex si parent nga am doom hmm. xëy. may ko borom kër xam nga. Mm-hmm. borom këram wan ni carrément ki nga ma jox macha allah loolu dara bonheur bi gën a euh, neex si parent si mm-hmm. si ay doomam loolu la je pense. donc euh, ñàkk xaar googu pour man euh, yàkkamti la rek. Mm-hmm. yàkkamti la ak ñàkk doylu comprendre nga. loolu la parce que booy xool génération gi léegi booy xool dëkk bi daal doo comprendre. xam nga. influence yi mi ngi fii ak yàqamti lépp daal man mama yàqamti laa ko mën a gisee influence man comme ni nga ko waxee léegi dara gënul neex mhm. ñu ceetal la comme ni ko sama yaay ji waxee ni mhm. defaral leen seen aada mhm. yéen xaaratu leen ko fi c'est parce que da ngeen jàpp ni góor ñi bu ñu demul ci yéen nag dinañ dem ci keneen wala lan la lan mooy cause bi ba tax xaaratu leen fa yoon non c'est-à-dire euh, cause bi du sax cause li ma la wax tout à l'heure la rek yàqamti rek la mhm. yàqamti la parce que yaakaar naa ni daal euh, euh, doom mhm. dafa war a toog xaar ba yaayam préparé ko mais léegi sang bi ngay wax déjà ñun suñu bu njëkk ba suñu maam yi mhm. dañ daan sang la préparé la defal la say baaxu maam mais léegi booy xool léegi loolu yëpp duñ ko def dañ lay may guddi gi ma ne la <laughs> booy dem sax say pomade la et c'est grâce à mi ngi am ba léegi am fa ndox daan taa boo fa demee fekk fa tepp tepp ba tey parce que ñëpp mi ngi am ba tey saa mm-hmm. à dire daf si am nag ñoo xamante nii waaw dañ ko fàtte am na ñoo xam dañoo fàtte seen aada mm-hmm. te yaakaar naa nag li la fal boo ko fàttee li lay fool yi day yomb loolu mm-hmm. loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax c'est important daal li lay fool li day yomb loolu ba tey may tourné ci sama yaay booy yaay booy ma gis da ngeen fonk li nga xamante ne moo di jëkkër bu ngeen sëy see macha allah dañ leen di naw. xale yi léegi bëggoon naa nga wax leen nan la ñuy def ba jaar ci tànk yooyu. ah xanaa ñuy góor rek. lu baax fonk seen bopp. Mhm. jigéen day fonk boppam bëgg lu baax téye boppam. Mhm. bu ko defee lu nekk dina ko fekk ci kër yaay. Mhm. dëgg la li bon rek mooy nga yàkkamti sa bopp. bu nit di la jigéen dafa war a fonk boppam ndax jigéen dafa nekk lu seer. dëgg la mooy jur lu nekk. Mhm. kon nag dafa war a tey ba am borom këram. dëgg la yaay booy jigéen dafay sàmm boppam.